asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu ngi leen di nuyoo fii ci Gambia fii ci am Amdalaay tey jii di samedi le 13 février 2021 Leewtoo TV mobilisé équipe bu am doole ñëw fii ci Amdalaay fa séene leen a toppal lamb ji fi am muy mbapat di lamb simple nee naa leen tey di ngeen gis. Gambia naka la ñuy dundee làmb ku nekk xam na ne làmb gëj na am Sénégal looloo waral Leewtoo TV mobilisé équipe bu am doole ñëw fii ci Gambie ñëw fii ci am dalay fas yéene leen won lépp luy làmb ambiance xarfa xurfa wante danañ leen war bëri ni ñun bëree wante tamit daañu waxtaan ak amateurs yi ci naka la ñuy dundee làmb loolu léegi lay doon fii ci Leewtoo TV wante fii ci biir Gambia jaajëf sama gaay ambiance su lamb جنبيتي دوغالو يزغاي مبرلاد وزيور جنبيتي دوغالو مزهار مبرلاد وزيور جنبيتي دوغالو مزغاي مبرلاد وزيور جنبيتي دوغالو مزهار مبرلاد وزيور جنبيتي دوغالو مزغاي مبرلاد وزيور جنبيتي دوغالو مزهار مبرلاد en sob yaay ma forolaate wase ngoor jangi fije idokalu men so yaay ma forolaate wase ngoor jangi fije idokalu men sob yaay ma forolaate wase ngoor jangi fije fayae boy faji fijo vajamin wen kim kaatolantege fijo vajamin wen kim kaatolantege fayae boy faji fijo vajamin wen kim kaatolantege leen di fay maa leen di fay nga jàmm Pagala waaw maa si jàmm kay Pagala fan la nekkoon waaw maa ngi Mbour yaa ngi waaw laaxatu ko waa non laaxatu ma sax dafa dem Mbour laa dëkk rek mais dañ laa gëj a moo tax nga maa gis mais lan moo la andi am dalaay waaw tey am dalaay comme que Sénégal mas na mun naa ne adduna bi la sax mais comme que ñun léegi am dalaay mbas amu fi ah am dalaay pays anglophone la ñun ñoo ngi bokk un e mois quoi moo tax te foofu doon xam nga rek dañ fa aaye lu nekk te fii dafa am lamb te ñun si lamb la ñuy yëngu yoon lañ ñëw xam nga rek ñëw jaayante gis naa la gis naa la nga xappoo ndax mi jaaju daw mel ni da ngaa namoon loolu damaa namoon lamb yaram bi da doon xas te ñun ay mbër lañu lamb lañ yaakaar kon dañoo war a mën a tëj lamb gi Sénégal ñëpp dem bëri ji ñëpp xam nañ la corona ga am na ñëpp xam nañ ko ñu tëj lamb gi ñu respecté te barrières yi moo gën ñu toog gouvernement gestuwuñu faalewuñu lijjantewuñu loolu day daal di mit loolu tax ñëw gàmm ñëw compétir. ñëw gàmm bi waaw jël si un million bi. non damay ñaan yàlla yàlla may ma ko rek. ndax ay champion rek ñoo fi nekk. mais mais fu yi toll ci pakala waaw promoteur yi dañuy wax muy teggi rek dañuy wax muy teggi rek. kan la lay tudd. waaw jarul mooy tudd ba xam nga boo tuddee turam rek. day yaakaar na mooy loolu quoi. mais promoteur yi ñu ngi ñëw. waaw promoteur yi ñoo ngi may woo waaw. ñoo ngi may woo waaw. ci kanam. waaw jërëjëf. jaajëf Samb. ñu ngi noonu ci mooy seizième de finale yi gannaaw ba trente-deuxième de finale bi jeexee di leen fàttali na léger bi soixante-huit litres la woon soixante-huit la woon ñu ngi nii ci troisième tirage bi diggante Ousmane ak Fara Awdi Ousmane moo ngeem boo ngeem bi Fara Awdi moo ngeem boo bu weex bi nekk suñu côté càmmoñ ñoom ñaar ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ña ngay lewaatoo am na loxoom ci ngemb Ousmane am na loxoom ci ngemb Fara Awdi jàppagul fenn di leen wax ne ñaari xale yi jar nañoo bàyyi xel ci tournoi bi nag ak Fara Awdi attention kal ba sori na kal ba na eh Ousmane daan na Fara Awdi hey waaw waaw jël ba rëy na Ousmane daan na Fara Awdi lan moo xaw arbitre lu arbitre wax.

namoon na ko trop nag. namoon na bëre quoi. waaw namoon na ko bu baax lan moo la andi am dalaay. waaw compétir rek ñun lamb la ñu am dañu compétir rek affaire yi moom mooy loolu daal comme ñun lamb la ñu am su weesoo lamb ñu ngi yeneen business mais suñu sport préféré moom lamb la quoi ba ñàkk a xalaat rek moom la ñu xam kon fu mu toggee rek fay dem pour mën a compétir quoi toog di xaar amul comme Sénégal bëreegul ñun doon ñëw fi dàq suñu wërsëg rek comme ni ñu daan demee rek fu mu fu laaj rek ñu dem fa incha yaa ngi soog a génn wala yàgg ngaa génn. non ngi soog a génn maa ngi soog a génn. bii mooy sa première sortie. waaw mooy sa première sortie. da nga ñëw pour jël sa 1 million bi. ci kattanu Seydina Mohamed. bu neexee yàlla buur bu tedd bi incha allah. booy fay ci lan la nekk. waaw mi ngi ci liggéey bi rek nekk ci ruqam. di gérer boppam quoi. te xam ne lu ji a jeexul jugu fa daal. te yal na yàlla ànd ñun daal jaajëf mbër waaw jaajëf looy wax Leewtoo TV tawfeex rek ñu bëgg nañ ci yéen bu baax a baax waaw Leewtoo TV moom mooy numéro un quoi noonu la quoi amul ragal jaajëf Etienne Etienne nuyu na la neel Etienne fay naa ko sama grand sama xarit fay ko fay naa bu baax a baax jaajëf jaajëf grand jërëjëf mbokk yi ñi noonu nag ñi ci quart de finale yi léegi di leen fàttali ñi ci am dalaay ba léegi ñi ngi ci poids léger waa lase bi nekkoon juróom benn fukki mbër ak juróom ñett maanaam 68 lutteurs léegi nag juróom ñetti mbër kese ci des total moo ci des Lac Rose Jam Terry Ngel Jon Cheval ak Neymar super bu Bargny ak Ibrahima Sarr Diouf combat boobu ñuy seetaan mooy dox ci diggante Jam Terry ak Ngel Jon ay ca Ngel Jon moo féete suñu càmmoñ jam teeri moo féetee suñu ndeyjoor jam teeri tibb na suuf di woo ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo attention lewaatoo ba dib na attention mel na ni mel na ni ngel joon day waaj a dem mais demul fenn ba léegi Mansour dafal nii jël ñaari combat yi beneen combat baa gën a la di dox ci diggante Total ak Lac Rose waaw kay defal ma duplex bi waaw kay mi ngi noonu diggante Lac Rose attention lan moo xaw fële eh waaw waaw Ousmane daan na ko Lac daan na ko Lac daan na total Lac dem na demi-finale waaw waaw xale noonu moo daan fara aw gi léegi. xale ba dem na demi-finale léegi bokk na ci carré d'as bi léegi dañuy ñëw ci diggante jam teeri yi ak ngel jon ñoom ñaar ña ngay jéem a naxante mel ni mbër yi nañu làmb wante amateur yi namoon nañu làmb wante reporter yi namoon nañu làmb mi ngi noonu diggante jam teeri yi mbay lu may way maa la ko wax li mooy lamb nee naa la walluk teen la lu mu metti metti gaay ci biti la ñuy taxaw lamb bu tolloo fii géwél yi dong ngay dégg ñooy dëgg ñooy way jam ak ngel jonn ceri xale bi Mbuur la jóge moo ngembo ngembi bi am sengoor bu xonq bi ngel joon moo ngembo ngembi bi am sengoor bu weex bi ba ànd ak sama caméraman Mansour attention eh jam teeri jël na xale bi bañ na attention koy tegal sees teggi na ko jam teere jàpp na ca sengoor ga jam teere jàpp na ca ga jam teere jàpp na ca seng attention attention jam jëm ca biir nit ña diggante jam teeri ak ngel jonn xale yaa ngi bëre jam teeri jàpp na ci sengoor yi ba mu dëgër ba pare bal ko ci kaw ñoom ñaar dañoo tegante bopp loolu mooy ndengeeñ arbitre suuf lay na ñu ñëwaat arbitre suuf lay na atte samp yow naa la bëgg la bëgg la tur la Fodé Mbissane Fodé Mbissane Fodé foo baañ foo jógee Fissel Mbarane laa dëkk Fissel Mbarane Fissel compétition rek compétition waaw Macky Sall daa war yi pour ñu bëre Sénégal mënul am lamb mooy suñu métier moo tax ñu taw si buñ ji a wane leer nañ ay xale yu ndaw lañ dina toll ci yoon yaa ngi comprendre. yàgg ci àll bi. ah yàgg ci àll bi. man waaw yàgg naa dugg ci bi 2018 ba léegi waaw. ren ren laa ren waaw yàgg naa compétir waaw. Kobongoy maa ko Kobongoy. Kobongoy maa ko jël final naa fi Gambie da fii saison bee passé semaine bee passé maa finalu fii Gambie waaw waaw. tey lan nga jël si. tey naa xaalis bu bëri waaw. xam nga ne du yomb. non man soxla ma lu yomb xale ndaw laa entraîné naa liggéey am naa doole kon daa war a métti di wax gars nag. pour ñu jàppale ñu quoi ay xale yu ndaw lañ yaa ngi comprendre boo gisee lii yëpp pour fisal fisal laa koy xëjal ba fii quoi fisal a comprendre loolu xam ne xale bi am na jom quoi ñu digal ko ñaan jàppale ko waaw. fàttali ma tur bi. Fodé Mbissane Fodé Mbissane. Fodé Mbissane. waaw jaajëf Fodé. ñoo ci kanam. mbër maa lay nuyu. waaw maa lay fay grand Mbaye Babacar naa la wér. tur bi la. wala nga ne xeeru Faas. loolu gën a la. wala nga ne xeeru faas. mais booy lu la andi lu may indi Gambie waa bëgg na mu làmb rek war a compétir rek man doomu Gambie laa waaw man mbëru gox laa. la waaw waaw. mais tey da ngaa ñëw pour jël si un million bi. waaw damaa ñëw pour jël si làmb ji incha allah. yaa ngi soog a wàcc wala yaa ngi ngaa dugg ci terrain bi. non demoon naa simal nag dama faa ñàkk huitième de finale. simal waaw. moo gisee làmb Gambie. waaw làmb Gambie neex na torop wax dëgg yàlla neex na torop bu baax a baax jaajëf ci kanam jaajëf grand Mbaye Babacar sambu waaw man euh, Ndiangar Ndiangar Faye Ndiangar Faye waaw maa ngi soog a wàcc maa ngi doog a wàcc tey ah. waaw déet jël rek barke Serigne Touba jël rek moo ma andi Gàmbi tey bilaay walay dalaay ah, jël yomb na de dara wóolu naa sama entraînement liggéey naa carrément waajal naa ko damay jël damaa ñëw pour jël lan nga waaj ah walay dalaay ah entraînement. mystique mystique non non loolu quatrième position. bant bi pour lan la. bant bi nii dara <laughs> damay wadaleku nii rek ah ca jëlal. <laughs> bant mais mais gis nañ ne Sénégal lamb ji lamb ji dafa taggatémbe boobu léegi looy wax. waaw xanaa métti rek barke Serigne Touba dañoo toog Sénégal ba xamuñ ni ñu loolu moo loolu moo ñu andi gam bi tey bilaay walay dalaay dafa métti trop essence dara bi rek moo ñu war a dimbale ngir yàlla ak yoonante bi ubbi lamb ji ñu bëre. parce que bëre rek lañ am bilaay walay dalaay. looy wax Leewtoo TV. Leewtoo TV kontaan si yéen. vraiment yéen yéen instant yéen ay buzz yi barki yàlla buzz <laughs> waaw. mbër maa ngi lay ziar. waaw doo la ziar bu wër. foro foro. fara waaw. fara foo jógee. bariñu bariñu Dakar. bariñu nga jógee. bariñu bo Gambie. waaw. mais booy xanaa sa yaram day xasan. waaw làmb jaral nañu loolu quoi. lan moo la andi fii. fii rek drapeau bi daa bëgg a jël si waaw incha allah. mais gis naa ne lamb ji bari na ay mbër dina yomb. waaw bëri na ay champion de mais xam am nañu si yaakaar na dinañ ko yóbbu quoi bu soobee yàlla. mais lan nga amagum ci lamb ji. Ah? ma ne lan nga jëlagum ren. ren gi maa ngi a waaw incha allah. noo gisee lamb waaw nee na trop lamb Gambie moom dafa neex trop trop. bilaay. jaajëf waa euh, Joal Palmarin. kan bi nu mu tudd. Ousmane. Ousmane. Mhm. mais yor nii lan la ci sa loxo. ay sengoor la. ay mhm. moom. Mhm. moo koy gàlloo quoi. waaw ah, lay jëriñ ci làmb. ah am na si solo daal. Ah. Euh, bari na njariñ moom. lan mooy ah, moom. aman ah, moom mënu ma mënu ma la con mënu ma la wax lii njëriñam mais bari na njëriñ daal laa la mën a wax. day day aar mbër mi quoi. Eh, da koy aar moom bokk na ci li koy aar moom. yow noo gisee làmbu gàmbi. làmbu gàmbi moom neex na moom. naan Ousmane ah, si war sakam. Mhm. ndax xam nga ah, moom mënul yomb moom. naa fi ay punkal. mënul yomb def leen ñaan ndax ñu mun koo jël quoi. ñooy def ñaan wala mooy góorgóorlu. dina góorgóorlu mais ngeen def ñaan ñu ngi ñu ngi sakku seen ñaan. jaajëf ok merci beaucoup. ngi ci quart de finale yi diggante Jam Teeri Jam ak Ngel Jonn di leen fàttali poids léger bi 68 litres la ñu woon léegi nag mu mel ni juróom-ñetti moo des attention eh Jam Teeri xëcc na ko xale bi résisté daal di bañ waaw waaw. ñoom ñaar ña ngay lewaatoo ay waay Ousmane Ousmane Faye fële ca Argentine nuyu naa la nuyu Aliou Sène ca Allemagne borom say jaamaane production lay bégee attention ñaari xale yi mel ni dañoo xamante ku ci nekk da ngay bëgg nax sa morom mais sa morom day bañ. diggante Jam Téeri ak Ngel Jon Ngel ñoom ñaar ñoo ngi lewaatoo attention Ngel Jon daw na jàpp mais Kéer naat na eh combat baa ngi bëgg a yàgg ndax miitaan nañu naan ndox ku ci nekk waxtaan ak say mbokk dellu suwaat ba léegi dara amagul waaw waaw di leen fàttali nag poids lourd bi gis naa fi ay punkal de ndax gis naa fi arobas gis naa fi Mamadou Bousso Boy Faye gis naa fi Pakala bu Mbour wante gis naa fi fils fils de Batlen attention attention Diam Terry jël na ko Diam jël na ko ma ngi kal xale bi bañ na ma ngay kal da koy tegal ses xale bi na jam teeru jàpp na ca ngemb la ca gannaaw ngemb la la jàpp Mansour ay waay jam teeri waay jam teeri ak ngel jonn jam teeri ak ngel jonn jam teeri ak ngel jonn ñoom ñaar ñi ngi jàppante ñi ngi roofoo ngel am na loxoom ci ngemb wal non jam téeri moo am loxoom ci ngemb jam moo am loxoom ci ngemb jam téeri am na loxoom ci ngemb léegi jam téeri am na ñaari loxoom ci ngemb Mansour Mansour jam téeri am na ñaari loxoom ci ngemb da koy buddi wala da koy caxabal wala lan lay def xale baa ngi ne tekk rek di ko déglu ñoom ñaar ña ngay dem ca biir nit ñi ñëw leen ci biir géew bi waay làmb ci ci biir géew bi lay sotte wante beneen kar de finale baa ngi ne la sama gannaaw diggante Saval ak Neymar la waaw waaw lamba ngi nii mel ni waa attention yëkkati na ko ba ca kaw tegaat na ko ay waay jam teeri waay jam teeri fa mu jàpp baax na jam teeri yëkkati na ko dóor na ko ci suuf jeex na wala jeex ay lay laa xale jam teeri daan na ko jam teeri daan ci beneen quart de finale bi ay ca ma ngay dox ci diggante Saval ak Neymar ay waay Neymar Brésil laa xamee woon wala Paris Saint-Germain wante Neymar ci biir làmb ji Neymar moo ngembo ngembu cuub bi ah cuub la moo def kii saar bu noir bi Saval moo ngembo ngembu Lagos bi Neymar jël na loxoom teg ko ci boppu Saval bi mooy troisième quart de bi daan rek yaa nga demi final ñu compal la maa la ko wax boo demee demi final rek ñu compal la nga am loo jënde saabuur sangu ba set am loo jënde ataaya toog waxtaan ak say xarit lii mooy làmb waay di leen fàttali ñu ngi fii ci am ndalaay attention ñoom ñaar tegante nañ tegante nañu bopp waat nañu mel ni combat bi dafa bari calcul ndax ñoom ñaar ay technicien lañu Neymar Saval ak Neymar Saval foqantey baaram di leen fàttali ñu ngi fii ci Amdalaay Gambia tey jii di samedi le 13 février 2021 attention Saval daw na jàpp ko ngembal xotteku na oh Saval jàpp na ko ngembal xotteku ma nga koy caxabal xale bi bañ na ma nga koy caxabal xale bi ràcc pare jàpp ñaari loxam ci ngemb Neymar jàpp na ñaari loxam ci ngemb attention kalba kalba sori na soriwul oh nee naa la ab galgal ngelaw du ko ëpp. diggante Saval Anta gis na ne léegi dem nga dem nga demi final. waaw waaw jël drapeau bi rek yóbbu ko bari ñu rek laa bëgg. yóbbu ko bari ñi. billaay wallaay. ah li ci des bëreetul de. waa gis nga xam nga gars yi fi nekk moom xam naa ne moom bu ma leen téye moom waaw waxatuma leneen daal maa ngi ñaan yàlla yàlla suturaal ma daal ma jël drapeau bi. mais mais mais noo gisee lambu Gambi. waaw lambu Gambi moom nee na trop nee na trop te ñu ngi ñaan yàlla Macky Sall feebar bi jóge fi ba mu mën a senegal ndax tamit jóge Dakar ñëw fii ni nii na niiwul. waaw ba pare fii booy fii booy bindu da ngay fay 1500. waaw te bu dee Dakar bu dëkkee tëggee tëgg rek dina ne ñun làmb lañ yaakaar ñun suñuy doole moo ñuy fay waaw te Macky Sall na tijji làmb ji dimbali ñu rek. Macky Sall na tijji làmb ji. dimbali ñu rek xam nga tooyal seen xaftaan. waaw noonu la demee xam nga nama nañu làmb te ñu làmb mooy suñu métier. yaa génn ren wala yàgg ngaa génn. non maa ngi doog a génn nag ñëwoon naa fi daanu fi demi quart ma ñëwaat bëgg a bëgg a bëgg lépp. kon bi mooy sa deuxième waaw te bëgg naa jël drapeau yi ba soobee yàlla. waa xewul. acca ñi ngi doonu nag léegi ci poids yi ñi ngi ci deuxième tirage boobu mooy deuxième combat Pakala bu Mbour attention attention Doole doxul a jàpp ma koy a jàpp xale baa ngi rasu xale baa ngi arrière Pakala bu Mbour jàpp la bëgg waaye xale bi mayu lool de xale bee nga def déplacement wala lii lan la xew Pakala jàpp na xale bi jàpp na waaw waaw hey. mais yéen Pakala daan na ko Pakala daan na ko ba tëdd ci kawam leer na ayca ñu ñëw ci diggante arobase ayca Ousmane ñu ñëw ci diggante Badlen ñoom ñaar ku ci nekk bi mooy sa deuxième combat arobase ak fils de Badlen si kii kii la dëkk kii xam cosaan la jógee ginnaaw raay mi ngi noonu. diggante arobase ak fils de Batlansiki arobase moo féete ndeyjoor fils de Batlansiki moo féete càmmoñ ñoom ñaar ñi ngi déglu wante diggante arobase ak fils de Batlan di luur bi amoon nañu quarante mbër ñoo bidd attention Fils de Batlen dem na Fils de Batlen dem na Arobase teru na ko kal ma ngi kal bañ na ay li lan la nii waaw waaw ña ngay bëre attention Fils de takk na takk na ko ma tuur war na ko ndomba daan waaw waaw daan na wala daanu ko arbitre sifle na oh la la la waay waay lamba gi noonu waay dañoo arbitre waxagul dara de Ousmane ah kokoy fils de bat lañ sikki ma ngay tekki sengoor ga fils de bat lañ tekki na sengoor ga ki mandal nee na ko takkaatal waaye tekki na ko de daa mel ni fils de bat na ko lu arbitre bi wax bi wax ko waaw waaw Fils de Batlen daan na arobas arobas am na lu ko bert nag mbooloo maa ngi mu toog dafa jombi lamba ngi noonu waaw waaw eh, waay arbitre bi nee na dañuy bëre Fils de Batlene ak ca jëlal ma combat géant bu Bargny bi jëlal ma combat géant bu Bargny moo ñu won gannaaw noonu Arobase ak Fils de Batlene dañuy bëre ay ca géant bu Bargny bi noonu di bëre lamb mu seet mu jee am Gàmbi moo ko jàll Ousmane xale baa ngi noonu turu wuyu na borom géant la njool la Sista parlen ak arobas. Sista parlen ak arobas. ñoom ñaar arbitre souffle na génn seen diggante attention ayca Ousmane jëlal ma combat fi लोगोंगे महामांगे अदोला जोड़ मांगे ये रबु माम baa ngi bëgg a yàgg diggante Arobase ak Fils de Batlen attention Fils de Batlen na ko léegi xale bi teggi tànkam Fils de a ngi dox ci kawam Arobase bàtt na ko ñoom ñaar tegante nañu bopp attention eh lan moo xaw Fils de Batling jël na ko Fils de Batling jël na ko arobas tëru ko Fils de Batling am na benn loxom ci ngemb Fils de Batling am na benn loxom ci ngemb arbitre eh arobas dugg na ci nit ñi arbitre soufflé arobas mbaa doon ñàkk combat Lovagit na babalange Buka tola Yoto mate Ramu mam na bambung de watai Lovagit na babalange Tola Yoto mate Arobas am nga am nga avertissement Baral waay Lovagit na babalange noonu jógal lamba noonu oh la la la la daan nañ ko jël bu rëy ak Pape Bandi 40 ak Pape Thiam attention eh eh lii nar naa gaawa lii lan la lii revanche la de ñoom ñaar bu yàgg rek bëre nañ fii bi fi amoon eh la ilaha illallah oh oh war na ko ma kay kal war na ko ndombo eh. ko oh oh oh 2-0 moo ko daanoon daanaat na ko Pape moo ko daanaat oh Thiam Babel Demba Thiam na ni waas ah Pape Thiam na bandi 40 ans bandi bandi bandi 2 ans la. Thank you. Eh, ñu ñëwaat ci ñu ñëwaat ci beneen combat diggante Fils de Batlen ak Babou Sarr waaw waaw Fils de Batlen attention xale bi daw na jël ko Njolla ak Ndama. Eh, Babou Sarr jël na tànk ba Babou Sarr jël na tànk ba génn na war na ko doon attention oh la la la na daan na Babou Sarr oh xale ngay dem dem na quart de finale Sénégal lay yor a tey Pakala nekk ca gannaaw di bëre waaw ah, waaw Ousmane sama caméraman bi Mansour ma nga toog di noppalu ak Modou Dakar jàppante nañu eh Pakala koy Pakala Pakala koy plaqué xale ba bañ na Pakala jàpp na ngemb attention. pression mu ngi koy yëkkati Modou bañ na diggante Pakala ak Modou Dagar soxla na beneen combat waaye li mooy lamb mu dëgër di xacc xalaat yi ko daan na ko waaw waaw doola doxul jàmm waaye Ousmane ah Pakala daan na xale bi da koo plaqué xacc ko ba mu mu weeru ko mu tëdd maa la ko wax ay ca Pod Mor rey na xale ba génn na ca ma ngay plaqué moom tamit la ilaha illallah takk na ko moo daan na ko daan na ko ba wëlbati ko oh maa la ko wax jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne bii moom moo am ci làmb ji fii ci am ndalaay bëre na li nga xamante ne bii moom mooy euh, poids léger bi ba àgg ci final bi mu waroon a dox ci super bu Bargny ak ki nga xamante ne bii moom mooy Neymar ñoom ñaar ñoo waroon na bëre final bi. bi bi demee ci poids lourd bi amoon nañ li nga xam ne moom mooy quarante litres mais bëre nañ ba ci euh, quart de finale bi quart de finale yi ñu ngi amoon diggante ki nga xamante ne bii moom mooy. Euh, Toubacouta ak Sosox waaye amoon nan Baba euh, Baba Sarr ak euh, Arobase amoon nan Pape Thiam ak Pakala wante amoon nan Batistuta ak Fils de Batlen mais combat bi nga xamante ne bii moom mooy yàq làmb ji mooy diggante Toubacouta ak Sosox ndax foofu ñoom ñaar bi ñuy bëree ci biir bëre bi Sosox dafa dóor ki nga xam ne moom mooy Toubacouta ku Toubacouta daal di fayu bi mu fayoo ci leen arrêté combat bi bi ñu arrêté combat bi foofu la coow li commencé nag. yooyu ñu dem ci table technique bi table technique bi jël victoire bi jox ko soosoo Toubacouta ak ñi mu àndal dugg ci biir géew bi na làmb dootul am nii la demee loolu moo tax làmb ji fi mu toll nii foofu la jaare àggul mu nekkoon Leewtoo TV fii ci am dalay di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon sama gars yi xaar leen ñu ci beneen événement ak yeneen làmb fii ci Leewtoo TV jaageen jëf